asalaamualeykum mbokku Kunun mais affaire yi xumb na foog naa ak koor naaj bi affaire bi doon na xaw loo quoi mais la la la la affaire bi xum na ah. di félicité ñëpp nga xam ni ñëw nañu ànd ak ñun fii ci kunun ci liggéey bu rafet bi di wax ñu gënoo nekk ci campagne électorale jëm ci élection bu am solo élection bu ñuy fale président de la république du Sénégal ku nekk xam nañu élection bu am solo la ci biir réew il faut ñu xëy le 24 mars en masse dem woote ji loolu mooy mën a tax problème yi gis fépp ci biir Sénégal gis ci département yi gis ko ci commune ñu mën leen régler ak jàmm te li may jël comme engagement moom laa jël fépp fu ma jaar mooy bu ñu yàlla joxe ndam tawat yi jëm ci ñàkk xëy mi tawat yi jëm ci bëggu faju mënoo faju tawat yi jëm ci bëggu jàng mënoo jàng tawat yi jëm ci jigéen ñi war am ñu jàpp mënuñu ci jàpp tawat ji gis jeunes yi war dog buumu gàcce yi ñu jafe leen yi jëm ci assainissement cadre de vie ku nekk xam ne ni Rufisque loolu daf fi sooxe tawat yi jëm ci architecture urbaine tawat yi jëm ci lépp luy nasaxal développement lépp luy nasaxal lu mu teree avancé tawat yooyu je l'engagement bu ñu yàlla fale ñu taxaw ci indi ci ay saafara yu engagement yi may jël engagement yi ma fas yéene respecté la bu ñu yàlla mayee ndam bu doon sago dañu fi yendu ak yéen xam naa ni doylu ci ñun ñun doyluñu ci yéen mais bare nañu taxaw gi xaar bëgg ñu yegsi ci ñoom te xam ngeen ni bis bi dafa gàtt ak ndogu li moo tax on va être obligé de continuer mais xam leen daal lenn jaar naa fu bare les couleurs affaire yi fi am xam nañu it zone bi maraîchage daf si am doole lu bare dañ ci yëngu li wéer mooy l'accompagnement de l'État bu ni yàlla mayee ndam ci loolu daa ngeen ko am ba mu mat sëkk ndaxte ci sunu programme mbay daf ci am wàll bu am solo ndaxte li ñu gëm mooy li ñuy dundee moo ñu continuer di ko jéegaani dañuy war am jumtuwaay yu war liggéeyee ko suñu biir réew doomu réew mi di ci dund te loolu taxawaay bi xam ngeen ni am nañ ko ci programme Sénégal Bon en Ville et Beau à Voir bi nag moo nekk nii nangeen ngeen ko xàmme bu baax bu ko kenn jaawale boo leen demee ci urne yi bulletin daan fa bare mais da ngeen jeex bii bu jaune bi ak bu blanc bi amul beneen couleur bu ko rax ngeen dem bàcc ko ba mu mat sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk ak victoire bi du am benn laam-laame ñëpp bu mat sëkk la mais daal la may daanale mooy kontaan sur cette très forte mobilisation de Baye très sincèrement à cette heure de la journée def mobilisation bi bee nit ñi impacté nañu retenir nañ yàlla nu yàlla may ndam bu ñu ñëw fetewaat ko fi